bu jeex fi tàkk tam gën noo jox jàmm gën noo jox ak mucc gën noo aar gën noo sàmm loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko ginnaaw loolu itam ñu tàllal suñu loxo di ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom sañ-sañ te mooy boroom mën man Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo nekk moo fi nekkal Serigne Touba te xam na ne dara du itteem lu dul lislaam ak doomu adama yi yàlla na ko suñu borom gën a dëgëral gën ko jee kàttanal ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci lislaam yéene koo def ci doomu aadama bi ko defee mu kawe njortam te ànd ko ak moom te daje ci suñu borom ginnaaw loolu itam képp koo xam ne xam nañ ne lislaam mooy sa tool wala def nga lislaam mu sa mu sa tool yàlla na la suñu borom gën a dëgëral gën laa kàttanal gën laa manal ba lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko ci def kawe sa njort te ànd koo ña nga ko war a àndal te daje cee ngërëmul borom ginnaaw loolu nag xam nañ ne ajjuma ji weesu ñi ngi doon waxtaane loo xam ne lu am solo am solo la ci lislaam te ndax dañoo toll itam ci weeram muy julli xam nañ ne julli lu rëy rëy la ci lislaam ci niñ ko wa niñ ko waxee woon ci ajjuma ji weesu ci lenn ci yi nga xam ne moo nuy woon dayub lis dayub julli tey nag kon julli moomu nga xam ne moo toll noonu rëyee noonu ana kan la war ak bu ko ak bu kam war ci boppam jë boppam nan lañ koy nan la koy mën a defee ba tax ñu wax ne julli ga def na ko ci defin wu wér ginnaaw loolu itam ñu julli li ëpp ci fiñ koy defee mooy jàkka xam nañ ne dees na ko defee ci kër waaye nag des na li ëpp ci ñu koy defal mooy jàkkee ndax xam na ni jàkka defaruñ ko lu dul ngir julli kon jul jàkka moom nga xam ne moom lañ def ngir julli nag ak jaamu yàlla moom jàkka moomay buñ cey dugg nan lañ ci war a duggee ak buñ cey génn itam nan lañ ci war a génnee loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane tey jii maanaam muy kan kan julli mu rëy moomu ana kan mooy ki nga xam ne moom la war julli mu rëy moomu na kan moo koy mën a def ci defin woo xam ne mooy tax ñu wax ne def na ko ci defin wi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ginnaaw loolu itam jàkk mi nga xam ne moom lañ koy defee ci li ëpp nan lañ fay duggee ak nan la génnee loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg waxtaane tey maanaam julli moom nag kan la war mooy xam nañ ne suñ borom li mu waral lépp mi ngi ko waral ci ñi ko nangul muy jaamu yàlla yi nga xam ne nangul nañ ko waaye nag du de boo nangoo ne ab julli naa itam day am foo toll ñu soog laa waral ñu soog a waral la ñuy waral ci yow mooy lislaam dafa doon loo xam ne dafa bàyyi xel loolu doomu aadama xam ne doomu aadama matut xam ne itam am na ay manque yi manquité yu nekk ci moom ba tax na bala ko balaa waral dara ci moom day fekk mu doon koo xam ne du nangu xam na ne war naa mën a jël responsabilité xam na ne itam li mu koy sant war na ko mën a defe ni nga xam ne ni la ko ni la ko sante lislaam di soog a waral li xam ne moom waral ci yow muy kon ki nga xam ne nangul na suñ borom moom la julli di war ñaareel ba itam mooy ki nga xam ne nangul na suñ borom mu noppi te am kàttan goo xam ne mën na ko koo defee am xel moo xam ne itam mën na koo mën na koo xamee ni mu koy defee doon koo xam ne itam nag bokkul ci jigéen yi nga xam ne dafa gis baaxam ndax gis jigéen ji gis baaxam ak di julli di war-war ak li muy rëy répp sañu koo def bu ko defee itam suñ borom sant ko ko te loolu itam doonul loo xam ne lu baax la ci moom ginnaaw loolu itam ki nga jigéen yi nga xam ne day soog a am gone toll ci di deret di fekk deret jeexul itam kooku julli di julli li muy rëy rëy julli waru ko kon ñoo ñooy ñaar yi nga xam ne di julli di rëy rëy ñoom waru leen ndax suñ borom mi nga xam ne moo ko tege moo leen ko teggil kon nag mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ñaareel bi bi ci saat mooy julli moomu ak rëyaayam boobu ak ñii nga xam nañ ne xam nañ ne léegi ñi mu war mooy ñii léegi nan lañ koy defee nag ba tax ñu wax ne tege defe nga ko ci defin wi nga xam ne ni la ko suñ borom bëgge mooy faw da ngay doon koo xam ne laab nga ci li nga xam ne mooy waral jàpp laab nga ci ba ba boo waree jàpp dem jàppi bu ko defee nag mooy tax nga nga sañ a julli noo mënoo sañ sañoo julli mukk te war a jàpp te jàppoo loolu nag li fi ñu ko jëlee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne képp koo xam ne day am nga am toj bu sew te jàppoo boo jullee itam julli ga du mën a wér lu dul ne da jàpp leneen beneen bi ci tegaat mooy julli li muy baax baax ak li muy rëy rëy suñ borom dañu ko rëddal wax ne ci waxtu sàngam nga koy def ak waxtu sàngam ak waxtu sàngam li muy baax baax ak li muy rëy ak loo mën pas-pas boo mën a yor ak xemmem tamit goo mën a yor itam sañoo koo def te waxtu du te waxtum duggoog il faut waxtam day dugg nga soog koo sañ def ñaareel bi itam boo koy def comme suñ borom ngay jàkkaar lool ngir déyaleeg moom te xam nañ ne niti àdduna yi képp boo dee jàkkaarloog ñoom da ngay kon nag booy jàkk booy jàkkaarloog suñu borom war ngaa waaj ba mu nekk ci melokaan wu rafet woo xam ne da xam-xam yaa ngi jéem a wane lu bon bon xam nga ne am nga koy jàkkaarloo te xam na ne ku rëy la ci yow kooku loolu mooy tax nag bu ko defee nag waajtaay woowee dafa am loo xam ne moom lañ wax ne ji góor ngën jaa néew na def loolu bu dee jigéen itam am nañ loo xam ne moom lañ ko wax ne ko nii nga war a waaje nan nga war a waaje mooy loo waaje mukk ci loo xam ne boo ko solee day day wone saw yaram day dafa dafa doon woyof woyof loo xam ne boo ko solee day wone saw yaram loolu kenn ko sañu koo jullee ñaareel bi itam li nga xam ne mënoo koo ñàkk suturaal ci góor mooy li tàmbalee ci ab jumbuxam bati ay bati woomam dee jigéen nag yaramam bépp lañ ko sant ne ko na ko suturaal ba tax nañ loolu itam lu ma ta bàyyi xel la ndax léeg-léeg nga danañ seetlu ne am na ñoo xam ne li ñuy jullee daanaka ci jigéen ñi léeg-léeg seen i wet day feeñ te loolu doonut loo xam ne lu baax la dañoo war a góor góorgóorlu ba li nga xam ne moom leen suñ borom wax ne nii ngeen war a mel ngir julli nañ góorgóorlu ba noo ne taxawee taxawaay boobee loolu mooy tax julli ga mën a wér ñaareel ba mooy boo doonee maanaam fi ngay jullee na la wóor ne fii fu laab la ñaareel bi itam li ngay sol itam na la wóor ne lii lu laab la kon nga xam ne boo boo gisee bu dee la nga sol dafa am loo xam ne sobee la su ci takk da nga ko war a dindi barab bi nga xam ne moom ngay jullee itam na nga góorgóorlu ba xam ne barab bu laab la nga soog ko nga soog a julli loolu mooy kon nii nga xam ne booy julli itam du ne fu la neex nga jublu daa am noo xam foo xam ne fu la fu la la suñ borom sant ne la na nga fa jublu loola mooy nga jublu xibla xibla nag mën naa nekk mën naa féete ku ne fu ne kon ñu xam ne bu ñu waxee xibla jébu ne rek benn place la boo xam ne fa nga war a jublu waaye yow fa la xibla ba jublu rek foofu ngay jublu loola mooy yi nga xam ne kon te ñàkk ci ki nga xam ne mooy julli mu def ko ñu mën a wax ne kon waajtaayen waa waajtaayu julli jox na ci doxin woo xam ne lii mooy tax ñu mën a wax ne julleem tegu na ci li xam ne fi war a tegu bokkute ex jëf ji nag ñëwagul waaye lii mooy waajtaay wi nga xam ne moom nga war a waajtaay waaje booy moom nga war a def boo bëggee julli ñaareel ba itam bëgg nañu ki nga xam ne dafa bëgg dafa jub ci jàkka wala mu jëm ci jàkka bu mu doon koo xam ne day daw wala muy muy muy daw yenn daw yi na na doon koo xam ne rek na dox ci tekk ak ndànk ba egsi ci jàkka ji ndax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko wax ndax xam nañ ne bu fekkee ne yaa ngi dajeeg niti àdduna yi képp ñu ñu war laa rasuwaar booy dem ci ñoom yaakaar naa ne demin wu se wu wone ne yow mii xam nga ki nga jëm lay doon kon nag comme dañoo jëm ci suñu borom itam war nañoo xam nañ fay jëmee xam nañ ca nañ war a doxe jëm fa loola mooy nañ ko dox ci ak tel teey ak sellte ak yéene ju rafet joo xam ne fës nañu nu jàkkaarloog suñu borom ngir diyaaleeg moom ngir lépp loo xam ne mooy suñu bëgg-bëgg wala lépp loo xam ne mooy suñu jublu suñu borom mën na koo nangul ba jëf ji nga xam ne itam moom la ñuy bëgg a jëf mu mën na koo nangul kon booy dugg ci jàkka itam dañuy bëgg nga jiital sa tànkum ndeyjoor booy génn nga génn nga jiital sa tam tànkum càmmoñ lan nag am na loo war a wax nag booy dugg ngir wone ne suñ borom yow mi nga xam ne di yaa waral ci man julli gu rëy gii te xam naa ne defe ko ni nga xam ne ni nga ko santaane jafe na ci man loola sa yërmande képp moo ma ci mën a gàttanu ba ma mën caa def su ma képp lay kattan ba man cee dajeeg sa ngërëm loolu mooy bismillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma xfir lii tunabi waftax lii abwaaba rahmatika loolu ngay wax mooy xam naa ne suñ borom lii may bëgg a jublu day lii may jublu si jir def si ko xam naa ne te yow laay jàkkaar lool te xam nga li nekk ci man ak mata ci matadi ak doyadi di googee ak doyadi googee jéggal ma ko xam naa ne jëf ji itam mënu ko defee ni nga ko bëggee lu dul sa yërmane kon danga ma dimbali ci sa yërmane ba mën a jëf lii xam ne mooy julli gi booy génn it loolu nag booy génn itam nga wax ne yàlla suñu borom ji bàkkaar yi nga xam ne gis nga ko ci man bi nga xamee ne jàkkaarloo na ak yow maa ngi lay ñaanaan nga jéggal ma ko adduna sii nga xam ne itam daa am lu ma fi war ci ay loo war-war yoo xam ne xéewal moom ma koy mën a fay ak sa moo ma ko mën a jàpp na laal ak sa baax maa ngi lay ñaan ci sa boro maa ngi lay ñaan ci sa baax ak ak sa xéewal nga dimbali ma ba ma am loolee man koo taxawee ni ma ko war a taxawee loolu nag fi ñu ko jëlee mooy yonante wi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xamaloon sayidatuna Aïsa moo ko xamal sayidna Fatima mi nga xam ne doomam la ne ko booy dugg ci jàkk na nga wax lii booy génn ci jàkk na wax lii kon loola moo tax nag am ñeneen nag beneen boo xam ne moo gën a gàtt xay na bismillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahuma fir li tax waftax li abwaaba fadrika mooy bi nga xam ne muslim moo ko nett li wax ne yonente bi sa alayhi wasallam wax na ne bu kenn di dog booy dugg ci jàkka na nga wax ne allahuma aftax li abwaaba rahmatika yow suñ borom day maa ngi maa ngi dugg si fi ci ngir jëf jëf juré ji nga xam ne moom nga sant moom nga ma sant te xam naa ne sa yërmande ak sa jàppale képp mooy mën a tax man cee def sama kémt lay kattan kon nag sa yërmande ak sa jàppale googee yàlla nag ma ko defal ba li nga xam ne mooy li ma sant man koo def li nga ma ko defee booy génn itam wax ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan adduna sii nga xam ne am na lu ma ci war te am na ay warteef yoo xam ne mën naa ko war naa ko cee def te loola itam xam naa ne sa xéewal ak sa jàppale rek képp moo ko man mooy tax ma mën koo def kon ñaa ngi lay ñaan sa xéewal ak ak sa jàppale ba li nga xam ne moo ma war ci àdduna ñu mën koo taxawee taxawaay bi nga xam ne moom nga ne ko sant loolu nag di ñu won ne kon li ñuy wax ne jaamu yàlla ak liggéey ñaar yooyu kon moo nekk ci àdduna mooy li nga xam ne itam moo war a ab jullit mooy taxawaay bi nga xam ne moom la jullit war a taxawee fii ci àdduna si kon ñaar yooyu ndax gis nañ ne bi mu génnee ci jàkk bi muy dugg ci jàkka ji am na lu muy wax bi muy génn ci jàkka ji am na lu mu wax kon day xam le ne génn naa ci jàkk ji léegi nag li ma war mooy àdduna si li ma ci war a dox ci doxe ci li ma ni ma ko suñ borom sante naa ci góorgóorlu doxee noonu noone ceeg nit ñi itam ci ni nga ni noonu la ma ko suñ borom sante jëflante ñoom itam ni nga xam ne ni la ko suñ borom sante loolu nag suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man te mooy borom sañ-sañ yàlla nañu dimbale jëf ji jëf yi nga xam ne moom lañ koy moom la ñu sant ñu man koo jëf ba man cee dajeeg li nga xam ne ni la ko bëggee man cee daje te ak ngërëmam li nga xam ne mooy ërci rëcc yi nga xam ne mooy nekk ci jëf ya ak matadi yooyee yal nañ ko suñ borom jéggal yàlla nañ ko suñ borom baal loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko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 rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin aqulu qawli hada wa astaxfirullaha li wa lakum wa saa'iri muslimina fastaxfiruhu innahu huwa alxafuru rahim wa nusalli ala sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam allahuma sallu ala nabiyikum sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam